internet Dakar Midi euh, ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp tey bëggee ñëpp di jox ñëpp nag seen wàccuwaay ah, di ñaanal euh, kilifa diini kilifa aada yi ci réew mi euh, yàlla dafa leen jàmm may leen rek ak kàttan suñu mbokk yi nekk bitim réew yàlla may leen xewal gu yaatu suñu mbokk yi nga xamante ni tamit ñu ngi tëdd ci lal hôpital yi yal na yàlla fagg seen bopp suñu mbokk yi nga xamante ni tamit ba tey ñu ngi ci prison yi. Euh, yal na ci yàlla wis ndox bu sedd ba ñu génn ba si seen njaboot ci barke ci bi di nuyu ñëpp di bëggee ñëpp seen émission bi nag nii saa su nekk nii rek lay demee émission bi nag ak saa su ne ndaanaan bi ñu leen di wan ndaanaan bi ñu leen di indil seen émission tribunalu ar bi kër géwél yi atu ndaanaan yi ak ndaanaan bi ñu am tey kenn dootu ko présenté ci même réew doomu géwél pire ci ndey ci bàyyi satu géwél doomu géwél muy doomu Grand Médine ñu koy wax Othio ku baax ku mun li muy def doom day nooy nañ la. waaw mais doom yaay maa ngi lay fay ah, di nuyu képp ku ñuy seetaan kon ni nga ko waxee rek di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi di nuyu sama yaay di nuyu suñu waa kër di ñaan yàlla nekk ci prison bi suñu borom génne leen ñu nekk ci lalu hôpital yi suñu borom fëgg seen bopp bañ delluwaat seen i a ah ñu ngi nuyu ñëpp nag ah di jox ñëpp seen wàccuwaay di la nuyu di nuyu suñu caméraman bi nga xam ne ñaawul ku baax. Mhm. waaw dëgg neexul. ñu ne ñëp kooku mooy Thier cameraman hmm? mais Othio doomu Grand Médine doomu Grand Yoff doomu Parcelles doomu Sénégal doomu réew mi sax laay wax parce que suñu ne Othio macha allah euh, ci wàllu bi mu féetee ci li muy def ñëpp ko nawloo ñëpp ko fan ñëpp ko bëgg parce que mun na ko te mu ngi teg ci heure mu ngi teg ci temps mais su réew mi bëggee xam kan mooy Othio Othio ndax mun na wax boppam. waaw Ethio man na wax boppam ci benn fànn mooy maanaam lépp rek doomu aadama ak lu mën si rek eh, na nga am yar parce que yar yar yar yar mooy lépp ci doomu aadama waaw mën naa ne man kenn du wax sax damaa yaru waaye man ba ma xoolee sax bu ma la waxul artiste sax doo xam dëgg la waaye lépp rek dañ koy teg ci yar ak tegin hmm. parce que àdduna lépp lu la yar may rek du loo ba tax na fu ma fépp wootee rek nit ñi ne daw wuyu si Mhm. parce que yar laa leen man ak jàmm ak salaam xam ak xàppi Ethio moom benn doomu aadama rek waaw yàlla def muy doon mu géwal nag nekk ci aar bi di yëngu nag di bay waaram mhm. naam ñu am nañu ma xam am nañu ma xamul waaye nag maa ngi bay sama waar ci loo xam ne mën naa ko mënuma ko mhm. xam nga aar dafa bëri façon dëgg daa metti waaw ah, des fois nga def dara sax nit ñi apprécier des fois nga doo wax nga def loo xam nit ñi duñu apprécier mm-hmm. moo tax fii kenn mën yàlla rek moo mën waaw mm-hmm. waaw te li nekk ci maanaam li nekk ci yow nga mën a génne aar li nekk ci yow nga mën a génne mm-hmm. waaw noonu nga bokk ci ban askanu géwél wala gawlo wala ñeeño waaw man askanu géwélu gawlo laa bokk géwélu gawlo géwélu gawlo lébu man ni ma mel ni ñëpp macha allah ci nday ci baay ñëpp ay doomu géwél lañu waaw sama papa ku na xam ne alaaji Souleymane Ndiaye yal na yàlla yal na ko suñu borom yërëm xaare ko àjjana ak képp koo xam ne sa papa tëdd na rek ñu ngi la koy ñaanal man sama papa dafa teel a làqu moo tax ñu bari xamuñu ko mais mag ñi baay ñëpp xam nañ koy sama papa alaaji Souleymane Ndiaye dëkk ca Wakam ca Wakam waaw daan tëggal jaraaf yi bari Wakam sa papa ci boppam daan tëggal jaraaf yi bari waaw ndëpp yi daan am wakaam gépp ak yoof ak ngor fépp moo ko tëgg mm-hmm. mais léegi nag samay frère ñoo jël relève bi ñuy tëgg gépp foofu macha allah samay doom baay maa ngi nuyu baax sama famille yaay nag euh, man ñi ma mel ni ñëpp ay géwél lañu mm-hmm. sama yaay géwél la ki jur sama yaay géwél la ki jur sama sama yaayati yaay géwél la waaw macha allah man sama lépp géwél la man raxuma daraay leneen yaa ma gën a xam raxoo daray la macha allah mhm. mais tey ku ne xam ne ne yaa ngi ci tëggam sabar parce que wante yemoo tamit ci sabar yi kese non man man dama man artiste la mhm. xam nga mhm. artiste mooy ku polyvalent polyvalent mooy artiste ku polyvalent mooy artiste mu ne fépp koo xam ne dañuy mën a mm-hmm. man macha allah mën naa tëgg sabar mm-hmm. macha allah xam naa musique parce que jàng naa ko tarbiyu naa ko waaw musique mm-hmm. naa ko parce que ku jaar seet suma groupe set suma groupe ku fa jaar kon xam nga ne yaakaar naa ne xam nga lépp comprendre nga man damay bongo su ma taasoo su ma taasoo rek dëkk man artiste laa te damay tëgg tama encore si waaw ah, damay ne man artiste la waaw maanaam su ma la déggee tama yeeg bongo yeeg sabar lépp lépp maanaam lu Youssou Ndour naan mën naa ci bii bor mën ca bee bor noonu noonu la fa demee nag mën nga ci bii bor mun nga ci mën ca bee bor maanaam fu la yóbbu daal nga moo tax ma ne gotto gotto yàqu dëru béy rek xam nga ni man naanaan laa <laughs> barke Sëriñ Saliou loolu dëgg la waaw noonu la demee nag mm-hmm. Mm-hmm. loolu dëgg la euh, mais mais ban ban ban année nga bàyyi affaire bi maanaam da nga war a téye relève bi mm-hmm. lii dafa war a nekk sa vision dafa war a nekk sa métier mm-hmm. nga dugg si téye ko sa loxo jël sa say responsable ne lii dama koy pratiquer ba réew mi xam ko loolu loolu ban année lal la dugg. waaw loolu année boobu mi ngi may dugg diggante deux mille neuf deux mille dix. deux mille neuf deux mille affaire bi dugg. Mm-hmm. may ànd ak samay nijaay. ak samay grand sidaat maa ngi koy Sidaat Bonbon Sidaat Bonbon jamono jooju ñu ngi gisee jës fu accès sama groupe ak ndeer mhm. jamono jooju man néew ma foon mais dama daan topp xam pour rek yooyu pour di gëstu 2010 ci fesman bi laay gën a xam ni maa ngi ci aar bi mhm. waaw 2010 2009 waaw laay a mën a dugg xam ne man lii sama métier la tey doon naa ko man maa mujjee tëgg sama famille mhm. sama famille maa ci maa ci aar bi maa ci mujjee dugg Mhm. waaye nag suñ borom am na lu mu def ci man waaw mhm. dama koy sante suñu borom bu baax mhm. waaw sant nag sama yaay bu baax parce que nag moom daf ñoo teetee sama yaay daf ñoo teetee jàppale ñu baax xam ne ñun lii lañ bëgg te suñu bàyyi ci loolu daan loolu loolu la daan def loolu la fi bàyyi moo ñu continuer ko xam waaye nag am ci fullaak fayda am ci fullaak fayda duñ dem fenn ñu ñuy jëppi wala ñu dem fenn ñu ñuy xool bët boo xam ne naka sulu noonu waaw man ñi may anda sax des fois bu ñu dem programme damaa naan booy lépp lu waaye am ci lu baax pour sol ko du xeeñ lu neex sol parce que aar loolu la laaj. dëgg la parce que nit ñoo laaj loolu. Mhm. waaw mais di jouer yeeg di sol ay carax ak di sol yére dagg ak nangama nangam. ay waaye non yooyu rafetul nit da ngay civilisé nit même bu dul aar sax même bu fekkee defoo aar sax nit da ngay civilisé. Mhm. civilisation dafa bokk ci dundoomu bokk ci jàmm yàlla. dëgg man man ci loolu laay dox man ku ma xam sax xam ne man man lu mayor yor mën naa ko jënd yére dàll parfum. Mhm. parce que mhm. booy dugg ci bi nit ñi nit ñi bu la rek ci yow la. bu la ñuy joxee cër rek ci yow la. Mhm. waaw noonu la demee. non loolu la woykat bi naan Odé nu mu la gisee noonu la lay awalee. parce que comportement tamit am na solo lool ci ci artiste bi. Mhm. parce que ki nga xamante ni euh, day dugg ci biir nit ñi di wax ñi koy déglu wala muy tëgg nit ñi seen xol di ci bég kooku war na am benn comportement boo xam ne saa bu dégaasee xol yëpp feex te loolu gis nañ ko ci yow. macha allah wante nga nekk ci aaru tëgg ku la xam sax mun naa wax ne ci tëgg mi lañ la gën a ràññee ci lañ la gën a xam euh, mag ñi di jooy tëgg mu yàqu di jooy tëgg moo xamante ne nii awatul ci yoon maanaam newatul fa mu newoon parce que xale léegi tëggatuñu yoon li ñuy tëgg mooy ambiance ak tëgg lu leen neex yow loolu tey nan nga ko jàngatee. waaw loolu mooy xam ma fa ndox daan taa boo fa demee ba léegi fekk fa tepp tepp. Mhm. fa ndox daan taa. Mhm. boo fa demee fekk fa tepp tepp. Mhm. pourtant tëgg mi ngi mi ngi fi de. tëgg mi ah yàquwul de. tëgg mi yàquwul tëgg mi mi ngi fi mais c'est que gars yi dañ koo moderniser dañ koo maanaam dañ ciy dugg yeneen i bagage ah, mais mais non non yàqu na non yàq na yàquwul. pourtant pourtant ñiy tëgg démb ba léegi ñu ngi tëgg démb. non xam nga xam nga xam nga sànq da da nga tëggum ak tëggum tey mun munul bokk munul bokk munul bokk munul bokk bu dëgg rek te tey jii am na ñoo xam ne tey boole noonu lan may far jar xamuñu ko lan mooy lan mooy yangab xamuñu ko. te ay tëggkat lañu te ay lañu ko laajee duñ ko xam boo leen waxee tey mees xeet bi ñaata la mu du la ko wax. te am na ci sabar te loolu yëpp am na ci sabar. sabar dafa bari secret. sabar lépp gàllaaj la. sabar juróom-ñaari peeg gàllaaj la. set peeg set peeg yi gàllaaj la. ah bon waaw. sabar lépp gàllaaj la. mees yi. mees yi yëpp gàllaaj la. ba ci der bi sax. ba ci der bi parce que deru eh, bëy bëy jinne la bëy alalu jinne la. moo tax moo tax tëggum sabar boo koy tëgg da nga war a set da war a sell set boo ci boo ci bëggee boo ci bëggee jariñu mhm. da ci war a set boo gisee tey di macha allah ñi suñu borom dimbali ci aar ñëpp ñi siy jariñu ñëpp dañoo sell dugguñu ci dara ñàkk fayda aar dafa fiir aar boo ci boo ci boo ci boo ci bëggee dugg boole ci yoo xam ne bokkul rek da lay wan boppam boo ci bëggee boole tey da ngay tëgg am na yoo xam ne dañuy tëgg di naan yàlla na ma yàlla baa ci kàddu gi ñu baal ma naan sàngara di tux yamba def na ko sunu noonu mais del del xool ñooñu xoolal ñooñu rek tey ar moo sell moo tax lépp lépp loo koy boole ci loo xam ne sellu rek dalay wan boppam waaw ar moo mel noonu mhm. aar lépp parce que lépp gàllaaj ta tarfa sell mais mais mais est-ce que est-ce que koy def ñoom ñoom xam na ne affaire bi maanaam euh, dafa laaj set ak sell parce que tamit euh, soo gisee mag ñi ne dafa yàqu mhm. maanaam li ci am ku ne xam na ko booy mooy li nga wax sànq ci côté comportement rocc ay tuñ xesal fii xam nga sol ay pain euh, maanaam yore façon comportement ak façon éducation boo xam ne euh, doo nuru giwel te doo nuru tamit tëggkat moo tax mag ñi ne tëgg mi dafa yàqu plus que tamit euh, léegi par mafia la dama dégg gars yi ne ñu ne par mafia la quoi par game la par game parce que dafa bëri ay nitu milliers yoo xam ne léegi dañoo rax ci tëgg mi man daal tëgg mi daal yow yow yaa ma gën a xam naa tëgg mi o xam naa li nga wax baax maanaam léegi ku ne ci dugg tëgg mi léegi ku ne ci dugg léegi parce que ku ne tëgg parce que léegi àdduna moo moo dox moo demee noonu mais bu njëkk bu njëkk am na géer ñoo xam ne géwél rek moo leen tëggal dëgg la ba léegi nii am na ñoo xam ne boo doonu géwél doo leen tëggal mais nag léegi nag géer ñi ku ne di yatul sabat ku ne daaj lu bongo ku ne di tëgg tamit léegi ñëppay tëgg mais nag affaire yi bokkul de ñi nga xam ne dañ ko doon baax mën koo xam li ñuy def am na ci fulla ak fayda parce que am na ñoo xam ne foo leen woo ñu dem. Mhm. boo leen woowee engagé woo leen sax ñu dem man dëgg yàlla man de doxewu ma noonu. mooy ñiy wër xew. waaw ñi waaw non ñiy wër rek bëgguma tudd doxu mbedd bi waaw doxu mbedd bi mais man moom yàlla doxewu ma noonu man moom bañ naa ko sax man boo ma woowee man noonu seetaan di seetaan may ñaata. waaw ñaata laa leen di wax ba pare. waaw amoo ko ñun bu dee nag sam parce que day nit ñoo xam ne mu say nit lañ lañuy doon mhm. ñooñu doo leen mën a fay ko que nit bu ne rek nit nga mhm. am ñoo xam ne say nit la ñuy doon parce que mhm. foo fu sa bët xonkee rek boo leen gëstoo gis leen ñooñu doo leen mën a fayeeku da ngay ñëw yow parce que nit ku ne sam métier ci nga mën a jaamu yàlla ci nga mën a dimbali sa moroklu mbokk doomu aadama waaw mais aar yàqu na aar ba mu yàqoo tey kon ma fi li wax rek mafia la léegi ñëppay tëgg ñëppay clavier ba pare ba xam nga ni sabar sabar clavier sabar clavier maa ko fi njëkk a def fii biir biir Dakar. sabar clavier sabar clavier maa ko njëkk a def fii biir biir Dakar tey war ngaa xam lool yow. mais kon est-ce que ci ci ci ñu yàq aar bi tamit parce que mag ñi léegi nee nañu maanaam xale yi mënootuñoo tëgg sans clavier. sans clavier non yàquma aar bi maanaam loolu. da ngay mais loolu est ce que ce ndax ndax gars yi ñeme nañoo tëgg sans clavier. non loolu wala clavier léegi da non bareetul léegi da cee bokk. da cee bokk kon ni changé sabari xam nga sabar léegi di si bari léegi pour nga gis peeg sax problème la. dëgg la léegi fooru jëmbe rek. jëmbe rek. waaw non yàquñu aar bi maanaam. ay mbuus ak toile lépp waaw loolu maanaam. li ma waxoon sànq rek àdduna day dox. àdduna day dox te loo gis ci àdduna rek tey jii bu njëkk suñu maam yi lan lan daan sol ay trois pièces yi ngand ay ngandi dofi yére lan lan daan sol suñu papa yi mais léegi fu mu toll nii boo boo boo boo solul pain wala solo yére yére bu xaw a yem rek yow daanaka yow yow bokkoo ci jamono ji àdduna moo mel noonu àdduna lay dox àdduna lay dox am bu njëkk eh, verre yi amul woon ah waaw yi amul woon wala wala yére bi ma sol nii amul woon. jamono la waaw xam nga lii jamono da koo laaj. motu la dëgg la mi ngi noonu nag. Mhm. àdduna moom àdduna moo mel noonu deux deux mille dix ak tey bokkul. Mhm. waaw àdduna doy dox àdduna moo mel noonu mais nag aar ba léegi yàqul ñu ngi tëgg normal ñi ngi tëgg normal. ba léegi non mi ngi gaaw rek mooy mooy cat bi. parce que xale yi ñoo gaaw léegi xale yi ñoo ñoo vite fait tëgg moo xam ne baaraam bay ñu am na ñoo xam ne bu la ñuy tëggal baaraam bay day wàcc day diib. waaw baara mbay di parce que am na ñoo ay fecckat yoo xam ne boo leen tëggalee baara mbay ju gaaw ko fecc parce que ñooñu ay doomu la lañu ba pare xam fecc fecc dafa am yoon ku ci mel ni sama maman Tako borom États-Unis maa ngi koy nuyu mu bugg sax tëggu mu gaaw parce que daa mën a fecc te dem na fu ne. parce que bi te daa mën a fecc pire. mais mais mais mag ñi dañ doon wax ne maanaam tëggkat yi dañuy xam rôle fecc. Mm-hmm. maanaam fecc bu jaar yoon. fecc bu jaar yoon fecc ñaata paa la. fecc xam nga sabar sabar cinq temps la. su dee sabar la. bu dee sabar la cinq tanla la. musique quatre temps. bu dee musique quatre ah. sabar cinq temps la dafa dafa am dafa am wala boo boo feccee dafa am. une deux trois quatre cinq hmm. comprendre sabar cinq tan la dafa am cinq musique quatre temps la dafa am boo fekkee ni en ah, une deux trois quatre cinq waaw mm-hmm. moo tax moo tax nit buy fecc dan nga ko war di xool yow mi yow mi koy tëggal mm-hmm. parce que boo xool rek mën ngaa jum mm-hmm. mën nga dem kër ñang <laughs> waaw parce que booy des fois dañ naan kii mënul tëgg parce que du daaneel ci temps ñu ne fecckat bi moo dul daaneel ci temps ñu ne tëggkat bi moo dul daaneel ci temps am na fecckat yoo xam ne ko xamuñu fecc sabar cinq temps la xamuñu ko. kon ñoom lañ mën a. parce que jàng parce que jànguñu boo jàngee di nga xam li sabar cinq temps la xamuñu. barke yonent bi parce que ba ci musique bi musique quatre tan la sabar mooy cinq temps li ma li ma li ma la wax ni ñu bari xamuñu loolu. Mhm. waaw parce que li man damaa tarbi. Mhm. tëb ma tëb rek nekk ci nekk ci game bi non tarbiyu naa barke alxuraan. mbapat nga mbapat naa mbapat naa de. jaar sama sama yi dan daan joué ji jës fooyu dama laan dox dama daan dox grand bi ni ba jës fooyu ba université xam nga université. waaw université. ngi jës fooyu nekkee foofu. dama daan dama daan dama ba jës fooyu. lépp pour tarbiyu lépp pour tarbiyu musique ak art. Oh. lépp waaw. moo tax tey ko ko ne yóbbul ma sabar bi bunt fii rek Moussa Gara laaj la njëgu taxi sax mu laaj njëgu taxi mais mais loo ci gis tarbiya moo tax duñ duñ ci am nit ñi baax. Mhm. nit boo tarbiyee suñu borom da lay boole nit ñi baax. Mhm. ñoo xam ne fu sa bët xonkee fu ne. Mhm. ñu ju taxaw la fa. waaw. bari naa ci ay ay ay ñoo xam ne tey jii kon sama programme bi may waajal le bi bii soirée yandu yandu yi nga xam ne xam ma temps moo xew maa ngi koy waajal muy ventre bi nii kon ku ci mel ni Tidiane Diallo mi nga xam ne dama koy sargal mu ku baax. Mm-hmm. nit koo xam ne nit ku mën a def social. Mm-hmm. nit koo xam ne waa Grand Médine gépp bëgg ko jox ko bopp. Mm-hmm. deful dara ñàkk fayda mu baax gën xam ma di ma dooleel fu sama bët xonkee barke Serigne Saliou Mbacke su ma ko woon téléphone moo may njëkk jël na ma sama rakk ji lan la lu xew. moom Tidiane moom nit ku baax non nit ku baax. billaay walaay taalaay tabaski moo gën ci man. korité moo gën ci man tam xarit moo gën ci man. Tidiane bàyyiwul sama dara. Mhm. li may wax ni moom moom bu ko seetaan day xam loolu. Mhm. waaw mais mais mais avant loolu avant avant. taban nag moom bari na ci morom biir grand bi moom Tidiane bari na ci morom. am na ñoo xam ne bëggu bëgguñu ku leen sen seen seen tur. Mhm. waaw foofu lañ koy baskot. mais bari na ci morom. waaw di si sargalaale nag sama jigéen sama xarit sama yaay sama lépp muy Aïda Samb Série Abbas Diadio. moom Aïda Samb Aïda Samb mi nga xam ne fi mu toll nii moo yëngal dek bi morsom bu bees bi nga xam ne macha allah yàlla suñu borom def ci jàmm mhm. mu wër ci àdduna nag mhm. mu baax nag loolu moo koy sargal parce que euh, jamono coupe du monde dafa def lu sama diggante ak moom waaw dafa xool dafa xool sama euh, sama téléphone mu xam ne téléphone bi ma yor bi baaxul barke Serigne Saliou Mbacke mu jënd ma téléphone bu bees tax moom moom Aïda Samb waaw moo def loolu moo tax nag suñu bis bii dama ko ci sargal te di woo ñëpp nag te xam naa ni foofu moom du yomb foofu moom xam naa sax balaa quatre heures cinq heures mu fees dell parce a ngi koy pare daanaka tikkee jeex na waaw loolu loolu loolu sax dama bëggoon euh, ñu ñëw fa euh, fin temps bi mais weesul dinañ fa ñëwaat mais mais yow yaa ngi organiser ay ay ay ay ay soirée est-ce que est am nga groupe groupe bu war a mën a tax nga organiser ay soirée maa ngi ah maa ngi ku doon chef tambour kay ah yor yor naa ko. waxuma maanaam waxuma nga bokk ci orchestre ndax am nga su groupe boo xam ne. am naa sama groupe bopp sama orchestre bopp laa. yaa ngi tëgg ay programme maa ngi tëgg ay jàkkaarloo. maa ngi tëgg jàkkaarloo maa ngi tëgg ngénte maa mariage ak lépp. ak sa groupe. foo ma woo ci bii boor rek fekk ma ca bee ak sa groupe ak sama groupe. ah mais nit booy booy àndal da da ngay sa groupe. ma ñi may ànd ak ñi may ànd ñëpp. ñi may ànd ñëpp daanaka ñoo bokk benn koñ sama ñii samay rakk lañu ah ñii samay doom lañu ñëpp sama samay groupe mhm. waaw man groupe la man wut maanaam jéggaane wu ma feneen mhm. waaw jéggaane man ñi ma ñi ma ñi may àndal ñëpp ñoo bokk benn koñ mhm. waaw yéen a bokk benn koñ euh, mais orchestre yi dañ la ciy gis euh, ci ñaata ñaata orchestre nga nga adapté wu di ci di di ci joué waaw man ñaari orchestre rek laa laa laa adapté wu di ci joué muy c'est sama groupe Baali Mender ak groupe de Samb groupe ah, Alioune Mbaye Nder ak groupe Aïda Samb Aïda Samb waaw ñaari groupe yooyu kese ñaari di tëggee mais keneen ku ma woo nag soxla ma bu ma deful dara ma ñoom balaxal la tëggal la ba mu neex nga fay ma dem ñibbi mhm. parce que ñun aar mooy suñu métier mhm. duñ toog di di maanaam duñ toog di xaar kenn waaw parce que temps bi temps bi li nga xaaratul kenn mhm. ku ma woo daal soxla ma def ma dara ne ma écho damaa bëgg nga ñëw gérer ma ma deful dara ñëw gérer la ba mu neex waaw te su doo doo parce que man lépp lu may def rek fulla ak fayda la. la avant avant avant ñuy yegg sax ci ci ci question yi sa message bi ma bëgg nga jàllale ko ci ñi nga xamante ne nii ñoo tax mag ñi ne tëgg maa ngi yàqu aar baa ngi yàqu ci ñi nga xamante ne ñoo koy yàq sa sa sa sa message ci ñoom. non sama naw lay ñi nga xam ne tey ñoo yàquñu aar bi sax maanaam euh, dañoo comprendre gul dañoo comprendre gul aar métier la mm-hmm. aar métier la aar du aar waaw li ma ñi wax mooy nañ gën a gëm seen bopp respecté seen bopp surtout ñu respecté seen bopp bañ a dugg ci dara ñàkk fayda bañ a naan sàngara bañ a tux yamba bañ di gains bañ a def dara fay fayda parce que aar métier la ñu bañ a foowee seen seen bopp waaw aar boo fayul sa bopp rek ak bépp métier boo nekk rek boo fayul sa bopp rek suñ borom jàppale la dimbali la waaw te suñ borom ñëpp la fi nekkal mais dispensaire daal nañ ko respecté jox ko cër maanaam li fi mag ñi bàyyi woon ñu koy ñu koy sàmm waaw maanaam nag mën nga indi yeneen i bagages yeneen i fem kon gars yi ñu xewal nii di xama di ruubeeg def defay affaire waaw mënta ñàkk mënta ñàkk ci aar bi eh mënta ñàkk. mënta ñàkk ci aar bi léegi nag euh, dañuy dem rek ci ci benn question boo xam ne dafa am benn xale bu jigéen du benn question sa ay question question la mais da ci am boo xam ne benn xale bu jigéen dafa ma ko message ne ma sa invité bi tey dama bëgg nga wax mu fexe ba bokk ci artistes yi nga xamante ne nii maanaam maanaam na wàcce boppam daal waaw kooku daal moom moom ci message am li li ma dégg boog ci message am mooy ak li ma ko mën a jàngate mooy que ni lim la lim la bëgg wax mooy eh, Othio dafa rëy Othio su rombee du nuyoo Othio amaloon nit ñi affaire xam nga day ñoddi lu amul ñoddi star nangam ak nangam parce que parce que amaana Alioune Mbaye Nder mi muy wala boog Aïda Samb mi muy àndal affaire yooyu quoi mais loolu ki wax moom sa koñ la dëkk xaw ma nag lan ngeen seq ba mu wax boobu message ci yow. waaw kooku la ko wax loolu ne ko man melu ma noonu na big yàlla man ku ma xam sax xam ne melu ma noonu. nee na Othio bu du nuyoo maanaam dafa yëg boppam dafa yëg succès. ay waay xam comme moom tey asamaan affaire yooyu wax ay. yàlla man de melu ma neen. man ni wa man waaw waaw man ñi ma ñi ma nekk sax xam nañ ni man man fu ma romb sax fu ma romb tant que nuyu ma du ma am jàmm parce que bëgguma ku ma sikkal benn benn baat lu mel nii mm-hmm. waaw bu dee nag moom dama ko romb nuyu ma ko wala mu ko romb di ko feemu ah maa tub di ko jégal di la di la wax ne yow sama xarit nga te bëgg naa nga doon sama xarit waaw parce que at man man awma kenn benn problème man sama xol bi dafa rafet waaw man xola man na ñëpp nekk sama xarit man bëgguma am sax noonu barke Serigne Saliou bëgguma am sax noonu man bëgguma am noonu parce que nit boo boo amee noonu rek da nga nekk ci fitna waaw am noonu man na ma ñëpp bëgg ma bëgg ñëpp ñu nekk si jàmm di xàppi muy neex xam parce que adduna bi amul solo. ñu ñëpp ñoo bokk ndey baay ba tax man am artiste may nekk sax artiste yi ma jote am ak ñoom rédaction sax fu ñu gisante ma ñoom fu ñu tasante dañuy foo kafre parce que amuñu kenn benn xaar ma yàlla parce que kenn ku ne yaa ngi sa ruq di di ko job kenn ku ne yaa ngi di ko liggéey muy neex ñi la war a bëgg di la bëgg ñi la war a engagé di engagé mm-hmm. parce que adduna bi foofu la toll. waaw mais di xëccoo fii waaw di xëccoo fii di ŋaaroo fii. ku ku tëggul rek sa géer daa xewlewul. dëgg la dëgg la. sa géer a xewlewul. loolu lu wér la. lu wér taman dama koy nangu. mais mais mais gars yi dañuy wax ne. milieu showbiz bi léegi dafa dafa dafa dafa dafa jéggi dayoo parce que lan euh, ni mu mel soirée yi ñu bëri bëggatuñu dem soirée ndax lan këf téléphone yi wàllu agression yi am ci soirée yi ak saaru Euh, pompe à gaz yi am ci biir soirée yi ndax yow mi nga xamante ni yaa ngi ci showbiz bi di dund soirée yi loolu looy dëggal la wala looy weddi la. waaw loolu am na non loolu loolu loolu loolu dafa am mais nag public yi ñoo bokkul public yi bokkul public bokkul de parce que tey jii bu fekkee de bu fekkee da ngay dem soirée ñoo xam ne fii boo la leer ni fii boo fa boo fa demee dañ fay tur pompe gaz wala dañ fay dañ fay këf téléphone doo fa dem mhm. public yi bokkul mais nag. àdduna moo moo doy waar rek àdduna moo doy waar àdduna moo doy man li may gën sax bariwul man li may dem soirée jàmbur yi sax bariwul man mën naa toog ñaari weer wala ñetti weer du ma génn tant que waruma joué du ma génn waaw gën nañ maa gis sax soirée soirée soirée gars yi waaw dëgg yàlla gars yi gën nañ maa que des fois nga am jot génn des fois jot nga da nga ñoo sonn mais nag bu dee gars yi ñooy def loolu nañ ko arrêté parce que soirée pour ñëw xàppi la mhm. pour ñëw këf téléphone wala këf saba wala tal pompe à gaz du loolu mhm. ñu ñëpp ñoo bokk Sénégal c'est la famille parce bi mooy dem pil fii public bee mooy dem fee mhm. benn public rek ñooy wër benn public bi la day tourné nii la rek tey yow la suba keneen la suba keneen ak keneen benn public la rek public buy génn tey ñoom ñoo génn suba waaw te nekk ci rek boo ci nekkee moom public buy suñu jógee ci loolu euh, dañuy jéem a ñëwaat ci actualité euh, làmb ji làmb ji am nga ci ay mbër làmb am naa ci ay mbër nag waaye sama mbër neewu fi mais yaay kan mooy sa mbër Yékini Junior ak Pape Mor Lo ñoom ñëpp ña États-Unis jàpp seen ñàmbur moo tax gëj naa gëj naa ay stade de wax nga ñu ma gëj a dégg non gëj naa ay stade nag xanaa ñoon dañoo bàyyi toll moom foog mbër mu bees tax boo xam ne dama koy tëggal loo xam ne barki Serigne Saliou Mbacke bu ma duggee biir stade ana ana ndongolo ndongolo ma nga mais kon yow kon yow. man am am amatuma mbër man xaw ma ban mbër moom moo may woo. mais Grand Médine amatul mbër kon. Grand Médine al Albouri nekk te Albouri suñu samay rakk nekk Grand Grand F ñoo koy tëggal. ñoo koy tëggal waaw ñu ñoom Fallou Faye ñoom ñoom ñoom samay rakk lañ. moo tax amatuma mbër. Oh. waaw te damaa bëgg mbër yi maam koo xam ne day doon sama xarit doon sama lépp. moo ko yóbbu esaat moo ko yóbbu esaat. du ko ngemb mu muy daan. <laughs> yaa ma gën a xam. lu neexee ngi noonu. waaw lu ko yóbbu esaat muy bëre di daan. parce tamit li nga wax sànq ci ci tëgg mi daf mu tuuse parce que euh, euh, sabar secret la waaw parce que mbër mi géwél bi koy tuusal war na xam moom cool mi mu yor di tuusal mbër mi galañ bi ci lan lay dox mees yi ci lan lay dox euh, der bi ci lan lay dox ba ci bant bi sax ci lan lay dox te loolu yoon la géwél biy tëgg mu xam loolu ci lim instrument bi mu yor mais ginnaaw loolu mais ci làmb ji lay nekk ba tey ku ne xam na ne làmb ji léegi moom président bi barki démb dafa joxe message ne lamb ji dootul guddee dix-neuf heures mu tas parce que li ko waral mooy violence yi nga xamante ni booy ñu ngi koy def ci lamb ji. waaw mais guddee boobu nag moom mu teel a tas àdduna lépp loo xam ne day teel a commencé mu teel a tas moo gën parce que dëkk moo waratul àdduna bi moo jaxasoo àdduna bi dafa jaxasoo de moo tax président bi Diomaye ñu ngi koy sant di ko di ko ñaanal yàlla yen bi oyof ci kawam mais heure boobu mu joxe noonu làmb 19 heures pile mu tas ah. heure boobu baax baax baax bi nag boobu nga xam ne ku mën a dem esa da ngay dem xàppi bu set bu jeexee nga dimbi daan xanaa heure boobu kenn du ci agressé kenn du ci def naka sulu noonu ñi agressé nañ bàyyi seen agression bi yéen ñi ngeen agressé seen rakk lañu ñii seen i doom lañu ñii seen i jarbaat lañu ñii seen i jigéen ah seeni seen i papa ah, barke yunte bi li benn maanaam li benn sama benn maire waxoon berki berki dem rek wërsëg kenn du ko yaa xamti mën ngaa agressé nit te fekk loolu sa wërsëg la mais dafa teel te pourtant boo ko liggéeyoon dang dang da mm-hmm. waaw mm-hmm. kenn du ko yaa boo liggéey rek am ko mm-hmm. waaw wërsëg moo mel noonu boo liggéey rek am ko wërsëg kenn du ko yaa xamti soo liggéey rek am ko mais ba tey ñu desaat ci éducation xale yi fan yi dafa am benn drogue bu bees bu genn drogue bi mu ngi tudd kuus kuus ñu ne yaxu néew lañ koy defaree moom la booy di jël ñii di xaru ñii di ray nit ñii di def ay affaire mais mais mais lan ngay jàllale sa sa message. Ah, ci ci couche de manque koy de manque soog a dégg couche. couche moo xew couche la man ay ay dégg naa fi ay vole ah waaw ah, ay suus yooyu moom dégg naa ko. mais bii couche maa ngi koy soog a dégg ay gars yi gëm leen yàlla nag da ngeen réglé xanaa bëggoo leen dund ni si ni si maam yi dund réglé leen seen bopp gi jëm seen naa moom te bàyyi couche yeeg suuf si man li kenn xamul ni la. ak gens bi ak gens bi. arrêté leen nag ngeen ñëw ñu xàppi ñu ñu ñu ànd and bu rafet ànd ànd ànd na la ñu ñu ambiance mu neex te di leen invité le day ngeen ñëw ñu ambiance mu neex ngeen bàyyi seen seen kuus yi man de man de kuus de kuusu xale laa ci xam mais kuus boo xam ne néew lañ koy defaree ah waaw ba mu sotti loolu de moo xew ci réew mi wante daal en tout cas daal mooy président bi moom ki fi nekk moom wax dëgg yàlla ñu ko fal am nañ yaakaar ci moom gëm nañ ne ñoom du ñu mujjee puso bi puso bi di reer gëm naa ne jomay Fay mi fi nekk ak Ousmane dinañu régler réew mi ba léew ba réew mi ba réew mi jaar ci yoon parce que tamit drogue bi drogue bi macha allah ni muy ni ni ko xale yi di jëlee ëpp na moo tax rey gi bëri wala agression gi bëri mais mais mais mais euh, ñu leen di ñaanal yàlla rek yàlla dimbali leen ba ñu génn ci loolu ñoom ñu koy def euh, ñu dem ci question yi yaa ngi soxna waaw maa ngi soxna maa ngi sam maa ngi sam ñaata soxna non ñaata ma benn rek benn rek benn ba ci ba ci ba ci kanam <laughs> kon da nga ñaare waaw ñàkk parce doomu ñaareel laa ah, non madame madame xaa madame gën a bëgg sama takk barke Serigne Saliou parce que moom nit ku baax la sama xarit la fiir rek mooy catam mais sama xarit la sama lépp la waaw moom sama moom sama la moom moom sama gaañ la waaw mm-hmm. ah, des fois nag waaw ah, bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk mais dama koy dama koy wax ni na góorgóor rek te muñ parce que aar du biir du biir day xëy rek wasin te ñi ngi ci yoon bi macha allah ñi ngi ñi ngi sant yàlla ah, maanaam ñi ngi ciy faj suñu suñuy suñuy soxla xam nga faj sa soxla mooy ñaanoo kenn aboo kenn waaw ñi ci sant yàlla moom di ko nuyu nag di ko ñaan di ko ñaan yàlla yàlla ah, bàyyi maag moom ba yàlla seytaane bañ a sama diggante ak moom parce que yàqkat yi dañoo bari yàqkat yi bari nañ trop amin amin yal na yàlla sàmm sàmm suñu njaboot suñu njaboot suñu borom may ñu ñu ñaan yàlla màgg ba mu koy teral waaw amin amin parce que daa bàyyi lépp ndax daa bàyyi lépp ndax ndax man waaw ku xam ne sëy ak artiste dafa métti mhm. waaw da ngay tëdd ba wala programme nga dem jeu nga ñëw fekk ku mu nelaw xam nga mhm. wala nga génn jékki-jékki génn te balaa maa balaa ngaa ñëw fajar jot mu leer nañ mhm. waaw mu koy ñaanal yàlla rek moom mu gën a dolli xolu muñ mhm. te xam ne man moom rek laay topp moom madame waaw yal na ko yàlla defal jàmm moom madame yal ko yàlla dëgg ci sey bi yàlla jubóole leen barkeel njaboot gi euh, musulman nga kenn du ko laajte ndax jullit nga am doo jullit loolu moom kenn dootu ko laajte ci même réew mais tey euh, ku ne xam na ne invité bu mu a doon dina am ñaari question yoo xam ne ci diine ji dinañ ko ci laaj parce que tamit dafa bëri maire yoo xam ne dama leen dékk sa micro ñu ne éducation xale yi nu ñu mer rek géwél yi ñoo ko def ci ñoom ñoo tax géwél ñoo tax xale yi nangootuñoo jàng ñoo tax xale yi nangootuñoo pratiquer seen diine ñoo tax xale yi maanaam ko ci dugal daara wala wala wala franco arab wala lu mun a doon du jàng parce que lan yi xale yi géwél yi di def seen bopp mooy tëgg meeg fecc mi te yaakaar naa ne doomu géwél bu njëkkaan danaan jàng am diine du doon nekkul tëgg sabar rek mooy nekk métier am na géwél yoo xam ne ay ustaas lañ am na géwél yoo xam ne sax ay imaam lañ xam nga léegi nag yow ñu bëggoon na ñëw ci yow en tant que père de famille euh, ñu bëggoon a xam tuuti rek ci wàllu diine ji tey euh, su waxtu julli jotoon tey nga war a jiite soxna si ak njaboot gi avant ngay kabar lan ngay wax. avant ngay kabar waaw mais ñun ay dom jullit lañu naam bu dee sax yàgguñu daara ja ñun ay doomu jullit lañu ah. bu ñu avant avant ñoo kàbbare day day li li sax xaw ma kii nu tuuti waay lay waay man ti ba jàmm sama xel mi fu mu ne ah xam nga dinañ julli. avant kabar. avant kabar ah dinañ wax auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. li xam li xam waaw ñu li xam. après waaw après après ñu la xam après ñu kabar julli. ah ñu li xam. waaw booy te ngaa bañ a dugg ci yàq yooyu. <laughs> waaw ah. du pour man pour xale yi ñuy seetaan. ak ak maire yooyu. waaw pour xale yi seetaan loolu wax loolu ci géwél yoo tax géwél waaw ñu doon xam invité man ma wax ci géwél. waaw lixlaam moom ay waay tey sama xel bi fu mu ne waay. lixlaam booy mu ñu la xam. waaw ñu la xam. <laughs> ba dagal loolu booy dafa ko quoi booy comme booy dagal loolu booy dagal loolu bu ko dugal de booy. non du dugal non li xam waaw li xam mën nañ ko bismillah allah ilaha muhammad rasulullah ay yàlla salaat yàlla fara xal xaama salaat allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah waaw seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy li xam mais ginnaaw boo ba war a sëlmal nga war a wax asalaamaaleykum droite asalaamaaleykum gauche avant ngay sëlmal nga wax asalaamaaleykum lan ngay wax boo doxee booy def ni maanaam booy taaya booy rek <laughs> bësal bouton bu yàq mission bësal bouton waaw léegi kon ñaari saar xanaa ñaari saar yoo jullee mun nga ko xul yaa ayyuhal kaafiruuna bul yàq bul yàq émission bi am nga ñun am ñuy seetaan te ñoo xam ne macha allah ñun waxtu julli sax duñu raw ñun parce que ñëpp ay doomu jullit la ñu mais nag ñu yàq émission bi kon garaaw may nañ may nañ may nañ may loxo léegi léegi. émission bi du émission wu diine. non mais mënul ñàkk. waaw mun a ñàkk. parce que say say fans ak say soppe ñoo lay seetaan. waaw te am na ci ñoo xamante ni tey mënuñoo julli te war nga mën a jàllale message boo xam ne dinañ mun julli. wallaahu ahad allaahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad xam nga maanaam ñëpp ay doom julli te dañuy julli ñun heure ñun heure yi ñuy jug julli bari xaaj xaaj bépp duñ julli parce que ñun heure yi ñuy tëdd heure boobu la la fajar te fajar xam nga yombul nit ku ko julli dëgg la waaw mais nag émission bi émission aar émission wu ah, émission wu diine bu la neexee nag boo jàppee benn jour ay question la rek waaye question bu la neexee nag boo boo jàppee benn jour nga ñëw def émission boo xam ne pour diine kase matériel la saar baqara banaasi nga xam ne géwél géwél géwél të yi artiste tëgg sax bi rek maa si dàq jàng maa lay maa lu garaaw nangul naa la ko waaw nangul naa ko léegi euh, temps bi jot na dama lay bàyyi rek nga jàllale euh, say information nga wax ñu projet yi ci sa kanam li ngay préparé li ngay waaj wàllu album bi single bi clip yi soirée yi jàllale say message waaw euh, maa ngi nuyu ñëpp nag ah, di jàllale benn message boo xam ne di ñaanal Sénégal gépp jàmm ah ndax Sénégal ñun jàmm la ñu xam ambiance foo kafre ah di nuyu waa Grand Médine gépp nag parce que tey ñëpp ñu ma mer rek ñoom la ah di waajal nag le deux le deux août bi vendredi bi nii spécial soirée yendu yendu lay doon day teel a commencé 17h pile na fa fekk ñëpp ñu ambiance mu neex 17h waaw soirée yendu xam yendu dafa xew te dafa tàng te booru géej ga seen ah di nuyu ñëpp nag seen set moo nekk en face poète. en moo nekk en face poète. Yoff waaw en face armée yi waaw maa ngi nuyu ñëpp di békke ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay di ñaanal sama yaay yal na yàlla guddal fanam di ko ñaanal yàlla yal yàlla guddal fanam ak bépp yaay bu may seetaan yal na yàlla may ñu mu fekk suñuy njariñ ci barke Seydina Mohamed di la nuyu nag nga ñax ki ñaan loolu nag baax nag loolu ak suñu caméraman bi yow sama xarit nga te da baax ca Grand Yoff bi njëkk ga waaw xam nga Grand Yoff moom te naa lu ne Grand Yoff macha da dëgg laa fa tëggul waaw mais nag ñu ngi ñaan ja ñu ngi ñaan ñëpp jàmm mhm. waaw buñ jógee ci la le deux bi le deux nga wax ne dafa am ñaar ñooy sargal dafa am ñaar ñu may sargal la le deux bi le deux bi muy Tidiane Diallo ak sama yaay mhm. waaw ñoom la ñuy sargal mhm. di ko ñaan nag ah ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi bi alamin waaw ñu ngi ci woo ñëpp na te xam naa ni foofu moom gëm sax nit du fa xaj incha allah ñu ngi woo ñëpp nag am bi jàmmeeg soppeeg ñëpp waaw di nuyu nag di nuyu sama sama sama sama sama mag yi baax yi nga xam ne ñu ngi ñu ngi ba bitim réew samay doomu baay mm-hmm. man ñooñu dañ maa bëgg ma bëgg leen waaw ku ci mel ni Abdou Gueye borom Belgique Abdou Gueye Abdou Gueye borom Belgique sama mag la ñoo bokk benn papa mu baax nag lool chaque jour ni ma dëkk di ma ñaanal ah ku mel ni Modou Ndiaye maanaa borom États-Unis ñoo bokk benn papa ku ma gëj a dégg ñoo bokk benn baay Modou Ndiaye maanaam bi nekkoon ci Fallou Dieng Fallou ñoo bokk benn papa ah bon waaw si mi ngi États-Unis di ko ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm di ñaanal Babacar Ndiaye sama rak mooy mooy sama caatu papa di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm di ñaanal képp koo xam ne bokk ak ñaan noom bàyyi ni ma bokkal ndey ak bàyyi mm-hmm. waaw <laughs> maa ngi nuyu ñëpp di leen ñaanal yàlla ah yàlla na suñu borom dimbali leen. <laughs> ci barkeent bi. <laughs> parce que man amul lu sama famille sama famille rek laa am man suñu ma bëggee ñoom laa bëgg su ma bëggul man ñoom laa bëgg waaw ñaanal ñëpp parce que nit amul leen lu famem doomu amul leen lu famem boo boo bàyyi say famille rek bàyyi nga sa àdduna. boo bàyyi say famille laa da nga bàyyi nga àdduna wala déggoo ma bàyyi àdduna ngay def parce que balaa nga xam ne bàyyi famille wóorul nga am problème gisoo say famille kon nag ñun ñu bokk ñun ñu bokk ñu ñëpp nañ bëggante te yàlla tax lu waaye am nga yéene ko ko xam ni suñ borom moo ko jox joxoo ko ko nañ bëggante ñun bëggante rek parce que àdduna amul solo hmm. parce que kenn du ko ne kenn xamul fa nga fa ngay yàlla rek moo xam waaw yàlla rek moo xam hmm, hmm. kenn xam fa nga fa ngay gis nañ fi fay fay boo xam ne kenn ki maanaam suñ borom da koy dimbali ah yor ko yokku ah ay famille duñ ko bëgg. dëgg la bari na fi. te mhm. pourtant kooku seen suñu borom teg ko jox ko jox ko li mu ko jox pourtant li li mu ko jox yéen ñi yéen ñëpp a ko bokk. dimbali. dëgg la waaw nañ bëggante parce que àdduna moo mel noonu nañ bëggante képp koo xam ne bokk nga ak moom famille jàppal sa famille. Mhm. boo jàpp sa famille rek waaye di nga. Mhm. waaw. li nga wax nag lii nga muje wax lu ma marqué la lu ma neex la parce que li mooy rôle lu géwél géwél dafa war a yor puso fukkate ko mu ñaw. géwél li ko war mooy defar géwél géwél waru seetaan luy ñaaw wala luy yàqu déedéet géwél du tànkamlu géwél ay tànkam tànku jàmm rek la war a dox làmmiñam luy defar rek la war a di di wax macha allah mais après deux après le deux bi après le deux tamit tànn bee def kon kon kon dabati rek waa Grand Médine am maa na ko tàmmal mais dañuy mbëkk a njëkkee le ba pare ñu dabali Grand Médine def fa tànn bee ju spécial ba may def chaque année invité ñëpp ñu ñëw Mhm. waaw yaa ma gën a xam allah loolu loolu su jege see dinañ ci defaat émission bu neexee bu neexee yàlla suñu borom incha allahu rabbi euh, tey ëccoo lañ amoon doomu Grand Yoff doomu Grand Médine doomu Parcelles doomu réew mi macha allah ki bëgg ñëpp ki ñëpp bëgg muy xale bu baax xale boo xam ne euh, marqué na empreinte am ci réew mi tey ba ñëpp ràññee xam na li muy def mën na li muy def euh, di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal wér ak wérle euh, suñu nawle artistes yi nga xamante ni tamit ama amaguñ leen ci plateau bi jàpp leen ne dinañ leen woo ngeen seet suñu wala ñu seet si leen dafa ngeen plateau waxtaan ak yéen si seen wàllu carrière di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan jàmm ci réew mi di ñaanal suñu suñu DC Ousmane directeur ñu ngi lay nuyu. Euh, Seri Marème ñoo ngi lay siyaar seen caali Demba Sène wante nag euh, Cheikh Alassane Sène euh, mu baax mi seex bi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaar di la jox sa wàccuwaay tey dama kontaan ci émission bi parce que tey sama seex laa invité sama xarit sama doom day di leen jox dig daje ba beneen yoon ci beneen numéro ak beneen invité incha allahu rabbi ciao bye bye ba beneen